kan bi damay damay wax ne d'abord euh, sama posture bi ma amoon laay amaat peut-être que dina am ñu mu choqué mais li may wax rek mooy sunu réew yi ay réew yu ñàkk la réew yu ñàkk bu dee dañu la jël jox la seen xaalis contribuable bi nga ne da ngay dem pour défendre sa mayo sa couleur nationale loo ci def yow yaa war a sant kay ñi def confiance boobu ci yow waaye ñoom waruñu la sant parce que moma bi ngay dem di défendre le drapeau national mais tay jii da ngay dem ci bir Casamance fekk fa ay xalé yu yor tenue seen tenue militaire di liguey serigne bi dans des conditions difficiles man dem naa foofu ba gis len bo duggee ci bir all bi da ngay tok ba ci yag rek ben militaire génn do xam fu mu ñu nek dans des conditions difficiles ñoñu amuñu cinq étoiles hôtel cinq étoiles ñoñu kenn jëlalu leen bus climatisé ils sont d'illustres inconnus bu la et il mérite tous les honneurs de la nation tous les honneurs de la nation ñooñu mérité nañ ko gis nga Koupentoum la fa xew avec commandant Sané ñu boum ko ngir mu défendre li nga xamanteni mom moy les personnes et leurs biens hommage national mérité woon na ko yaa ngi donc ñi nga xamanteni ño démon campagne bobu moy les joueurs ñëw ñu jël xaalis bu bari jox leen dégg naa sax laaj nañ ay passeport diplomatique xaw ma lu ñu koy doyee ñoo xamante ni sax fu la neex tukki ci àdduna bi xaw ma looy doyee passeport diplomatique am na ci ñoo xam dañu waxoon sax ne dañuy rationaliser loolu mais lu ci mën di am mooy que ne il faut que ñu xam ne sunu xaalis bii ñuy jël ndax bariwul jël ko jox la ko nga dem war nga góor góor ba la fay ndam nga indi ko maintenant quand la première nation africaine prend deuxième pour man victoire amoul. il faut qu'on soit sérieux aussi la hiérarchie n'est pas respectée parce que la première nation africaine est venue deuxième du dëgg Lol moy constat bu njëkk bi Benen bi moy dama kéro que euh, ci Ghana ma gis le ministère le ministre des sports mu dem ci biir euh, assemblée nationale ghanéenne mu taxaw di def le point le point ci xaalis bi nga xamanteni ni joxoon nañ ko ko ngir mu dem ci euh, Égypte mais pourquoi le droit d'inventaire euh, nous doit être refusé le droit d'inventaire ne doit pas nous être refusé il faut que les questions qui fâchent soient abordées te loolu mooy il faut que xaalis bi nga xamante ni joxoon nañ leen ko te coow lu bari les gens ci sont boobu ndax nee def nañ amna favoritisme yu fa amone nenañ amna am népotisme yu fa amone nenañ gis nañ ñu dem ñoo xamanteni xamuñu lu leen yobbu xamuñu nan lañu démé jappuñu jàppuñu sax waron nañu dem jappon nañ ne fi lañ gënoon a yelloo toog am ñu yelloo won dem xeyna xëy te demuñu ay rupture d'égalité ak ay favoritisme yu bari amna ak lu ci mën di am l'opacité ne doit pas être érigée en en en en méthode de gestion nañu génne compte yi ñu teg ko sur la place publique wax ne li lañu def Lilan lañ ñu joxoon lii lañ ci def ndax am na lu ñu indiwaat ca lañ leen dénkoon ndax am na lu des wala ndax dafa manqué ba ñu dolliwaat loolu yëpp dañ ko war a xam donc le droit à l'information loolu tamit ci démocratie la bokk dafa am mbir yu bëri yu fi xew yoo xamante ni na mu waroon leere leerul bokk na ci Demba Diop juróom-ñetti nit ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan awuma ci mbokk amoo ci mbokk xëy na moo tax te war nañu choqué ndax ñun ñoo bokk réew mi Matar Ba amu ci mbokk mais juróom-ñetti nit yooyu famille ñu jóge yépp yëg nañ ko tey te ñoo ngi continuer di ko yëg peut-être qu'il n'arrive même pas à faire la paix avec cette histoire parce que da ngay gis ne loxo doomu aadama dugg na ci hein? donc loolu yëpp dañ ko war a leeral infrastructure yi liñ ci def mu leer gis nga coow li amoon ci Dakar Arena ci ci ci arène nationale bi ñii ne don la ñii ne dañ ko jënd kenn xamul ba tey lu xew comprendre nga yooyu dafa nek loo xam indi suspicion dafa nek nak yooyu nak motax ku melni guimari Guy Sagna ci biti am solo wa deful dara ci kasso bi il doit rendre il doit rendre compte il doit rendre compte waaw c'est je ne je ne parle pas de matarba c'est le ministère des sports qui doit rendre compte waaw mom ak la fédération nous rendre compte comme les meilleurs gars souvent nous reetaan c'est un problème encore de gouvernance il faut que ñu la gouvernance dafa la crédition des comptes il faut faire le point par rapport à l'information financière et je pense que lolo sunu daf ci am depuis 2015 le cours des comptes a a rapport depuis 2015 le le le le IGE rapport aussi nous gëj ko gis a hein? gis nga rapport gis nga coow yooyu yëpp tey il faut que institution yooyu jouer seen rôle xëy na sax loolu moo tax président de la république fan yi ñu génn mu taxawalaat ci biir cabinet une commission de suivi et d'évaluation des projets et programmes de l'État mais dama koy fàttali rek ne ko il y a des institutions habilitées habilitées yoo xamante ni ñoom ñoo fi nekk pour def sa job la pour faire le point ci wàllu euh, li nga xamante ni dénk nañ ko nit ñi te gis nga cap boobu tant que franchiruñ ko dinañ am impression parce que PAMA moi le projet de modernisation là de l'administration bi mu wax barki mais séminaire amon na fi ci walu administration ci la waxone réforme mais pourquoi les réformes n'arrivent pas lui-même le président de la République lors du groupe consultatif bi amone Paris waxna à Amadou Ba bi le ministre des finances neko monsieur le ministre pourquoi les réformes n'arrivent pas mais président Il dafa dafay woné jamono bu nek dafa constat bi mi def aveu d'impuissance là, par rapport à des réformes yo xamanteni été mënul fexé ba mu ñëw mais où se trouve le problème où se trouve le blocage kan moy l'empêcheur de tourner en rond kan la mom nak biñ koy denk rew mi dañu doon xaar ci mom lolu réforme je pense que c'est un tout globalement les réformes de la justice doivent venir avec 2%. Euh, ci le budget le budget général il y a que 2 ou moins qui est consacré à la justice nan nga ci mën a ay réformes majeures xam naa fait trop loolu moo tax nga gis euh, Souleymane Téliko dégg nga keroog ci bi renouveler seen instance yi insurgé wu ci infrastructure mais avec un budget pareil je pense que nous ci def lu